mbokk yi ginnaaw ba ñu sante yàlla julli ci sayidna muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam di baalu ak ñëpp di baal ak ñëpp yi tàllal suñu loxo suñu borom bi nga xam ne mooy borom kàttan te mooy mooy borom ak man Cheikh Mamadou Muntaxa bi nga xam ne moo fi nekkal Serigne Touba suñu borom ju ngi ko jox kàttan gën koo jox ak wér gën ko jox ak man-man ba lépp loo xam ne yéene na koo defal lislaam yéene koo def ci doomu aadama yi mu def ko ni mu ko yéenee su moom te daje ci ngërëmul suñu borom loolu suñ borom jàpp na ko mën na ko ñi ngi koy ñaanal itam képp koo xam ne sa taxawaay mooy taxawu diine yàlla na la suñu borom jox kàttan jox lag wér jox la man ak ak tal ba lépp loo xam ne yéene nga ko defal lislaam nga def ko ni nga ko bëggee te daje cee ngërëmul suñ borom ak ña ngi ko àndal ñëpp ginnaaw loolu nag ñi ngi nekkoon ci xam xamle melokaan yi nga xam ne moom la ab jullit war a bàyyi xel ci boppam dafa war a yëg dafa war a xam boppam muy xam gëddaam waaye nag xam gëddaam googu bu mu ko yóbbu ci mu ñàkk jox àq mbala mu ñàkk bàyyi xel ñi nga xam ne ñëw na ba ko nekk di ay doomu aadama ay doomu aadama ni mu ni mu bëggal boppam na koy bëggal mbokki doom mbokk ay doomi mbokki doomu aadamam li bañal boppam noonu na koy bañal itam mbokki doomi aadamam waaye nag mu mel ni suñ borom mi nga xam ne moo nu andi fii ci kaw suuf te bam nu andee da dañoo boole joxuñu xéewal goo xam ne lépp loo xam ne soxla woon nañ ko ci kaw suuf gi ngi mën fee nekk ci nekkin wu rafet mën fee nekk ci nekkin wu sedd suñu xol loolu lépp suñu borom andil na ko ci kaw suuf si waaye ba mu loolu lépp ci suuf ni da bàyyiwuñu dafa am loo xam ne dañu koo digal am loo xam ne dañu koo tere am loo xam ne dañu koo dig am loo xam ne dañu dañu dañ cee tëkku mu mel ni nag kon doomu aadama bi nga xamee ne jox nañ ko li nga xam ne moom la war a mën a nekk ci kaw suuf woon ko itam yoon wi nga xam ne moom la war a jàmmoo suñ borom kon dara desut ci moom lu dul mu góor góor lu ba lépp loo xam ne moom la suñ borom wax ne lii ku ko def daan la faye nangam mu góor góor lu ba bokk ci ña ñañuy faye ñoo ñoo doolee la nga xam ne itam def na wax na ko te ne wax ne képp koo xam ne def na ko dinaa dajeek yow ëllëg ci nii ñu géem a góorgóorlu def suñ kémtu kattan ci fas yéene sori loolee ndax loolu mooy suñ suñ noflaayu tey di suñ di suñ mucc ëllëg loola nag mu mel ni kon doomu aadama bi nga xamee ne suñ borom defoon na ko loolu lépp muy andi na ko ci kaw suuf jox ko xéewal yu mën a xéewloo ci la kawe njottam wan ko itam nan la koy jaamoo wan ko itam lan lay moytoo li nga xam ne moom la ko tere xamal ko itam ne ko àdduna sii de loo fi man di gis ak nu mu mën a demee ci yow ci ak ay xéewal ak ak mën a doon na nga xam ne du sax ndax ëllëg ndax as ndiir su ndiir su tuuti rek nga bàyyi ko fi kon na nga bàyyi xel li nga xam ne mooy kër ga nga jëm ëllëg te mooy këru àllaaxira googee loolu nag na koy bàyyee xel mooy fas yéenee topp ndigali suñu boroom yi su tere yi nga xam ne moom la tere jëflanteeg doomu aadama yi itam ci jëflantiin yi nga xam ne moom nga war a jëflanteeg doomu aadama yi kon loolu li mu war a waral mooy doomu aadama ju nekk war naa toog ba mu yàgg mu xool boppam seetluwaat boppam ndax xéewal yi nga xam ne sama borom jox na ma ko ak won wi yoon wii mu moo woon ak digg yi nga xam ne moom la diggee ak tere ak tëkku yi nga xam ne def na ko ndax man maa ngi jaar ci ndigal yi nga xam ne moom la digal ndax maa ngi moytu itam ndax tere yi maa ngi moytu tere yi nga xam ne moom ma ko mi ngi ma koy tere ndax maa ngi jëflanteeg sama mbokki doomu aadama itam ni ma waroon jëflanteeg ñoom loolu doomu aadama ju nekk war naa toog bu yàgg mu xool boppam seetlu ndax ma nga ca loola wala nekku ca bu ca nekkee mu gën caa góorgóorlu mu ca nekkut mu fas yéene nu mu ca nekkee loola mooy li nga xam ne moo koy jëriñ tey war koo jë mën koo tax a mucc ci ëllëg loolu tax Seydina Omar daal wax ne suñ borom day wàccu naag ñun ndax jox nañu xéewal guñ mën a nekk ci kaw suuf wan nañu yoon wi nga xam ne itam nan nan lañ ko war a toppee wax nañu bu ñu toppee liñ li nga xam ne moom moom lañ cey jëlee wan na itam buñ ko ñàkkee topp liñ ci liñ cey jëlee kon li ci des mooy doomu aadama bu bi nga xamee ne suñ borom defoon na ko loolu lépp moom moo war a toog ba mu yàgg mu xool boppam ndax mu ngi ci ndigali suñ borom yi wala nekku ci ndax mi ngi bàyyi tere yooyu nga xam ne mu la ko suñ borom tere wala bàyyiwu ko ndax li ko suñ borom digal ci ne ko bàyyil xel sa doomi mbokk mbokk mbokk doomu aadama yi nga xam ne ñoo ngi bokkal ci kaw suuf ndax maa ngi def loola wala defuma ko bu ko defee nag loola mooy tax bu fekkee ne ma nga ca mu gën cee góorgóorlu bu ci nekkut mu fas yéene nu mu ca delloo ndax kon suñ borom loolu mu mel ni kon doomu aadama ji nekk loolu war na la na ngay dellu léeg-léeg xool sa bopp ndax yaa ngi ci fi nga war a nekk wala nekkoo fa ndax yaa ngi moytu li nga war a moytu ndax moytu wala wala moytu woo ko ndax yaa ngi jëflanteeg doomu aadama yi ni nga war a jëflante ñoom wala jëflante jëflante ak ñoom noonu loolu moo tax yàlla suñu borom di ñu wax ne yéen day doomu aadama yi di nga xamal naa leen ne adduna si day lu ma ko fayda ndax jox naa leen jox naa leen fi xéwal goo xam ne da ngeen ko mën a dundee ci ni ngeen ko bëggee waaye alaxira nag mooy fi nga xam ne fañ jëm foofu lañ jëm kon foofee nga xam ne fa lañ jëm te fa lañuy sax yi na doon loo xam ne nañ koy bàyyi xel waxtu wu nekk bàyyi xel ga nag mooy xool sa bopp ndax yaa ngi ci fi nga war a nekk wala nekku nekkoo fi nga war a nekk xool sa bopp ndax yaa ngi jëflanteeg doomu aadama yi ni nga war a jëflanteeg ñoom wala jëflante woog ñoom loolu loolu mooy bàyyi xel gi kon nag suñ boroom mi nga xam ne moo mën a jéggale te mooy te moo moom njëggal tey tey te moo mën a yër moo moo mooy ki nga xam ne mooy yërëme te moo te moom yërmande ci boppam te yërëm yërmande jooju nga xam ne moom moo ko moom yéenewu ko maanaam bëggalu ko lu du doomu aadama yi ak ñi nga xam ne ñoom la bind ñi bind ñëpp yërmande rek la leen yéene kon yër yërmande joojee nga xam ne moom la leen dencal nañ jéem a góorgóorlu ci fa jot yërmande joojee te mënuñu koo jote ci lu dul nag topp ndigalam yi nga xam ne moom la digle moytu tereem yi nga xam ne moom la tere ba noppi itam du jëflanteeg doomu aadama yi nga xam ne wala mbindeef yi nga xam ne ñoo nekk ci kaw suuf ni nga xam ne ni la suñ borom bëgg ñu jëflanteeg ñoom ci xam ne mbindeef yi day mbindeef suñ borom la te suñ borom mooy suñ mooy suñ mooy suñ mooy suñ buur kon la buur moom yow ma nga xam ne da ngaa bokk ci njabootu buur war ngaa bàyyi xel la nga xam ne moom la buur moom yàlla nañ suñ borom dimbaleel boppam yàlla nañ suñ borom taxawul boppam ba waxtu wu nekk ñuy xam fi nga xam ne fi dañ war a taxaw xam li ñu war a bàyyi xam ni ñu war a jëflanteeg doomu aadama yi te bañ a bañ a doon bañ a xeeb kenn bañ a doyadal kenn kenn ku nekk ñu xam ne teraanga jooje ji koy defal waaye bàyyi wala bàyyi xel googe nga xam ne mën nañ ko bàyyi xel du ne moom jëmmi boppam waaye yàlla la ñuy xool ci moom moo tax ñu ñu di ko jox teraanga jëng koy jox moo tax itam ñuy bàyyi loolee nga xam ñàkk a jëflanteeg moom ci ñàkk a jëf jëflante ci moom ak moom ci lu dul bokkut ak ni nga xam ne lañu war a jëflanteeg moom kon suñ borom ñu mi nga xam ne mooy borom jéggal ñoo ngi koy ñaan lépp loo xam ne def nañ ko te muy dayoo dig ndaamu aadama képp yóbbunu ci moom suñ borom mi nga xam ne xam na doomu aadama xam li bind ni mel xam doyat yi nga nekk ci moom waxal ko boppam wax ne wa xuliqal insaanu daifan kon xam na ne ay ñun ay doomu aadama yi ñu doyat di lañ xam na ne ñu matadi lañ xam nañ xam na jikko yu nekk ci ñun yëpp loolee nag nga xam ne xam na ko moom te maanaam du to moom ak toppam ñu ci dara doonul lu koy jariñ dara ak ñàkk ak ñàkk ñàkk noo topp ci dara itam doonul loo xam ne lu koy wàññi dara la wala lu koy jar lu ko lu koy indi lenn kon moomee moom mooy ne ñu ngi koy tàllal suñu loxo jéggalu di ko di ko baalu ci di baalu suñ mbokk mbokk suñ mbokk doomu aadama itam ñu dañ leen bàyyi xel waxtu bu nekk ñu xam ne dañ leen a yoreel ay àq ñu leen di bàyyi ñu leen di baalu baalu àq loolee nag yàlla nañ ko suñ borom defal moom mi nga xam ne mooy borom kàttan te mooy borom mag